jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni leen koy defalee saa su ne tey nag ñu toog ak koo xamante ni kenn du ko présenté ci làmb muy mobile 2 mobile doomu Grand Yoff mobile doomu États-Unis mobile borom <laughs> borom arène nationale dinañ waxtaan lu bare bare ci wàllu làmb dinañ waxtaan lu bare bare ci njariñu làmb dinañ waxtaan ci mobile carrière làmb mobile actuellement fan la toll. mais ginnaaw loolu yëpp dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi en tout cas daal ñu ngi Grand Yoff moo di mobile maa ngi lay nuyu. waa Baye Djili maa ngi lay fay. Hmm, di siyaare ñëpp di nuyu auditeurs auditrices yu Wassare Lamb yëpp. Hmm, vraiment di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di wax tamit ne ñi ngi ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax rek yàlla nay njëriñ. li ci dëng nit ñi xam ne suñu matadi la li ci jub ñu xam ne ndimbal suñu borom la. jaajëf. mobile ci la nekk. waa nii rek ni ma fekkee maa ngi samay activité tout xama nga xëy dem maintien ji dem entraîné ji bu ñu nekkat nekkaat suñuy activité di bouger chaque instant quoi. waaw hmm. maintien entraînement pour la. ah pour man sportif la en plus lutteur la man chaque jour dara waruma bett à tout moment dama war a a nekk ci loo xamante ne buñ ne woon suba la ma def ko. Hmm. Euh, léegi nag balaa ñuy dugg ci làmb dafa am loo xamante ne jot nga ko fi bàyyi muy mobile demam bu mujj États-Unis dafa lekk avance su jàmbur waroon bëre ñëpp yaakaar ni mobile dina dellu si parce que bi mu demee dafa dem pour préparer ji mobile bëri siwul ba CNG bi génne daan daan la daan sa ménageur euh, loolu lan nga ci mën a leeral Sénégal waaw mooy li nga wax rek avant tout mooy di am benn affaire bu may leeral mooy man bi may dem États-Unis dew moon pour préparer ji combat. Hmm. pour mu leer. bi may dem États-Unis dañoo tëj làmb ji ne jusqu'à nouvel ordre. Hmm. maanaam waxaguñ nit ñi kañ la dara mën a xew. mooy il faut gars yi xam benn affaire ne bi ñuy wax ne mobile dañoo jàpp dat mu war a ñëw ñëwul danoo waroon a wax li jiitu loolu. mooy mobile li mu def ba CNG ne daf koy sanctionné. mais ñoom def nañ ko mobile te teguñ seen bopp daan. il faut mu leer. lamb la le vingt cinq la woon ñu jàpp ko bu ñu fàtte loolu. boo fàttalikoo le vingt cinq juillet si la ñu waxoon ne. ci lañ bàyyi ba ci suuru lamb ji ñu doog a wax nit ñi ne lamb ju du am ñu ngi ko wax nit ñi ay midi une heure. fekk mbër yëpp ñu war a nekk man naa ci mbër yi nga xam ne ñëw ba waa ñëw ba stade waa CNG xamal ma ne lambu ji du mën a am ma jóge stade def demi tour dem ñibbi si. stade da takk say jaaj wala da ngaa ñëw rek. damaa bëri si woon. parce que bi ñu xëyee fii ay dix heures onze heures. Hmm. am nañ écho bi ne ah am na ñu wax ne lambu ji du am. Hmm. mais boobu ñun mënuñu woon sukkandiku ci am nañu wax ne làmb du am parce que ñun ne xëyuñu woon rek ñu nañu làmb day am bindoon ay këyit xamal nañu am ngeen convocation da war a bëri ji jour temps date heure temps beneen bi topp lamb bu doon yàqu tamit ñu war koo yëg damaa yàpp ne ñi koy yàq dinañu war suñu ménageurs yi xamal leen ne lamb ji du am ci bis bii. ci li ma yàq. mais ñoom ñoo reconnaître seen erreur ne ñoom boo gisee ñu yéex a wax mooy ñoom ba ci ba ci suuru lamb ji xëy nañ demoon nekk bureau gouverneur di négocier pour lamb ji mën a am. ñoom ñoo ko wax ne ñoom ñi ngi génn bureau gouverneur ay 11h midi. kon presque ñun heure boobu lañ ko heure boobu la rumeur bi commencé di am. bi ñu ko yëgee ñun ñu génn kër gi takk suñu ngéem dem stade bi ñu ñëwee stade Maxime Bargane dama ko fekk moom moo ma introduit ne ma mobile tey nga ñëw nii di bëri si yëgee nii ci stade bi ne làmb ji am loo koy kii ma ko sant yàlla rek xëy nii la mënoon demee ma tourné def demi tour yéegaat sama oto biñ ñëwee ci lañ dégg ne tëj nañ làmb ji jusqu'à nouvel ordre ba leneen mën a génnaat nii ak nii ak nii ok man ma départ dem États-Unis bi ma demee Amérique def ay vingt jours yooyu noonu. pour Amérique bi dina ñëw ci dem Amérique bi mais bi nga dellusee promoteur bi tëgg làmb ji wala kenn ci membre CNG bi woote na tenant mobile parce que yëg nañ ni ñëwoon nga stade pour bëre si amul est que foofu lan ngeen waxan man bi may ñëw stade fekk naa fa promoteur yi ñu taxaw promoteur yi maa ngi leen fekk stade ñuy kaas ay CNG respecté wu ñu nii di xuloo ni ak nii ak nii ma wàcc gis ni action yi demee nga xam ne boo fa taxawee coow bi day gën a bëri Max Mbargane rek laa ci jot a waxal mu introsé ma après benn membre NG sax ñëw na ba ci man masawu affaire yooyu ma yéegaat sama oto retourné mais après déggante nañ gars yi naan waaw ñun lii ñu ngi doon dégg rumeur yi démb mais mënuñu leen woon wax dara parce que tamit amaguñ si woon lu leer gars yi dañu waxoon ne at ñu ngi ñaan gouverneur bi te à tout moment mun na sotti ñoom d' accord nañ ne ñoo def loolu mais bu loolu amee tey nga toog ñëwoo esat xam nga bi loolu amee man ma ñibbisi dem États-Unis bi ma demee États-Unis nag def ay vingt jours promoteur bi amaat date ne jàpp na date le octobre bi mu jàppee date sax woowu ma. Hmm. ci groupe WhatsApp laa ko yëgee. ma jël sama téléphone ma woo ko ne dafa am ma dégg dama dégg ñuy wax ci suñu bi quatre combats yoo xam ne lim nañ ko ci benn groupe WhatsApp mu ne ma yéen ñëpp la. ma ne ko mais date bi ñu wax ay dix jours a ci des de mu ne ma waa le octobre la ma ne ko non man munu ma ñëw feeg le octobre te nag wax dëgg yàlla bugguma benn réeroo am ci parce que bi ngeen jàppee dat ñëw naa ba stade te ñu dofuñu ñu ay nit yu xamul dara wala dara buñ neexoon ñu ñëwee ba stade bëgg lu ñaaw wala bëggu yàq rek mënoon nañ taxaw stade woo Isseu trente mille francs ngay fay Isseu mu déplacé wu ñëw constaté ne mobile 2 ñëw na stade bu xëyee ñu dugal suñu kayit dinañu ñu jox suñu reliquat mais dañoo jàppoon ne ay promoteurs yu bees lañ yoo xam ne ñë nañ am suñu yéene kon waruñu leen def loolu am na yoo xam ne rafetul pour ñu koy dégg sax cax ci làmb ñu ne garaawul nañ ko xool rek nu mu gën a comme nag jàpp nga date te man du ma mën a ñëw te yow nee nga il faut nga tëgg mu ne waaw man ak Bour Sine bu ñu bu ma ñibbisee nga jàpp ko datu Iba Mar Diop ñu bëreel la parce que mobile 2 Bour Sine ku ne xam na ne mun naa ñàkk xaj Iba Mar mais période boobu noonu moom am na lu nekkoon ci suufam am na ñu nekkoon ci suufam doon ko geerle moom it jàppoon na ne période boobu xam nga làmb rek ak nit ñuy accueillir gan gu bees surtout ñu ne niveau bitim réew la jóge ñëw di investir si làmb ñi nga xam ne jàppoon nañ ne ku mën dara la koo xamante ne ëllëg sax ñoom mun nañ am ay soxla yenn affaire yi mu jàppal leen sax yéen ñëpp dund ci combat bi di ko xeexle xëy na nag période boobu noonu talul woon dégg lu ñu koy ñu koy wax li nga xam ne mooy yoonam parce que ku mel ne Abdoulaye Ndiaye dem na b yëkkati téléphone am woo ko ne ko mais yow yow da a mobile 2 ngay rocc mu doon neuf combat nga tëgg sa journée mobile ñëw ci benn def nekk ci nopp yi di ko mais après par la suite mu jàpp datam mu tëgg bi mu jàppee datam mu tëgg man ma nekk Amérique ba ñibbi si bi ma ñëwee ñu wooluñu CNG ma dem CNG bi ma ñëwee CNG waa CNG ne ma mobile 2 yow CNG daf la convoqué c'est parce que promoteur daf laa tëggal combat jox la avance jàpp datam nga dem tukki bañ a ñëw te loolu règlement bi def ci prévoir ay daan léegi nag comme règlement bi def ci prévoir ay daan mais bala ñoo jël daan yi di ko teg sa kaw dañ lay déglu nga wax lan moo ko waral ba pare. ma ne ko ok dégg naa leen. ma ne ko beneen première bi ci topp mooy tegaluñ ma combat jox ma xaalis jàppal ma dat ma tukki dañ ma tëggal combat jox ma avance jox ma date jox ma jour jox ma heure jour bi jot date bi jot heure bi jot ma ñëw ci stade bi. Hmm. te fekk naa leen fi yéen ñi ñëpp toog. Hmm. te yéen yéen ma xamal ci seen ñu bopp ne làmb ji amul. lu tax ngeen ne du yéen gouverneur moo ne fu mbooloo di daje instant yi police du ko sécurité yan motif jox. Hmm. ba pare beneen bi ci li gën a gaaw gouverneur waxul làmb du am gouverneur dafa ne fu mbooloo di daje police du ko sécurité kuy dajale mbooloo na nga xool noo ko nañ ci seen i texte dañ ne bu police amul làmb du am. kon CNG moo yàq làmb ji. bu fekkee dëgg moo neex yàlla parce que seeni texte moo prévoir loolu. ok man leen biñ ma jàppalee date ma ñëw ba ci stade bi yéen yéen a ma xamal ne làmb ji amul tukki naa promoteur bi jàpp na date ci sama ginnaaw mënumaa ñëw léegi nag daan bi ngeen wax nii man accepté naa ko mais ci li ma yaakaar. ci li nga xam ne moom laa yaakaar te kuy yor xel di xalaat war na koo mën a xalaat mooy bu fekkee lii CNG daf ci prévoir daan CNG waroon naa prévoir mbër mi nga xam ne jox ngeen ko dat jox ko jour mu ñëw ba ci stade bi làmb fekkee prévoir dara da doon xaar mbër mi rek koy def mm. pour daan bi ci mbër mi la féetewoo mm. d'accordal naa leen ko def leen ko mais après yéen bu ngeen demee toog ba wéet yéen di xam ne yéen ñii am na lu leen waroon seen bopp te defoo leen ko te c'est pas la première bëri na loo xam ne ñu ci ciy duma ay mbër te a ko moom duma yi. Siteu Papa Sow amateur yëpp a dagg seen bee ñëw toog stade di seetaan CNG moo yàq ñu ngi esaat. moo jël bàyyi Demba Ndiir teg ko fi Siteu di taxaw. ci place ci mu kaay problème d'organisation la te ñoom yaakaar naa war nañu nangu seen. ñoo ko def CNG moo jël bàyyi Demba teg ko place Siteu. jël jiili sekk place Papa Sow. Hmm. coow am ci diggante ñaari camp yi xeex am. yàq làmb ja yàqu fa ñoom ñoo ko yàq tey CNG ci grandeur am dafa waroon accepté ne moom moo ko yàq taaj mbër yi taaj promoteur yi seen ménageur ñu waxtaanee ko xool nuñ koy apaiser ba kenn du ci gaañu. loolu mooy rôle grandeur mais dañoo jël daan teg mbëri jël géwél ba xeex aj ko ñoom ña fa teg géwél bi ñu bàyyi seen bopp géwél bi dafa teg boppam boo ko mënee aj kay war a ñëw ba kii ko fa teg ne ko yow it ajaaleel sa bopp dëgg la yàlla mm-hmm. ni ñoom dañoo wut yat wéer mais yat yi ñoom amuñu ci mais yow ñaata at lañ la lañ la lañ la daan ak ñaata lañ la alamaan ci wàllu xaalis. waaw cinq ans lañ wax ne alamaan nañ ma deux millions quatre cent mille. léegi bind bind nga recours wala nga. non bindu ma woon waa écrit bi nag ñoo ci nekkoon ñu ngi doon bind tout. ñu ngi doon bind euh, di dugal appel di wax ne ñoom d'accord uñ ci àtte bi. Hmm. ñu ngi doon bind yeneen lettre ak yeneen lettre tamit yoo xamante ne ni xaw ma quoi parce que yooyu tamit du sama domaine ñoom écrit bi ñooy dox yooyu noonu yëpp. Hmm. ñi ngi ci waa ñi ngi ci woon ak moom. surtout loolu surtout sama ménageur nga xamante ne dafa nekk borom kër. yor njaboot boo xoolee combat boobu mooy combat bi ma njëkk a signalé si ko yor lu mat ay trois cent et quelques litres léegi trois cent et quelques litres yëpp war a pause wala keneen di leen signalé di lekk ñaxam uniquement ndax benn mobile 2. te yéen ñë ñoom ñëpp xam nañ ne lii ñuy topp mobile 2 buñ ko tegoon ci kayit tej ko si liñ ko war a teg bañ koo teg ci mobile 2 daa yàgg def sorte duñu attaqué lii occasion la pour ñu faj suñu mer ñoom xam nañ ne amul luñ mën a topp ba pare dama lay expliquer lu gën a doy waar ci problème boobu. est que xam nga ne man mobile 2 règlement mënu maa aj le 10 bi ñu wax mobile 2 ñëw na bëriwul. daa bañ a bëri si. mais le 10 octobre man aw ma ci contra te ko amul contrat mënul bëri le 10 octobre bi ñu tegee contra yi sama manager daf leen ne signé wu ma ñu ne ko lu tax signé woo mu leen sama mbër nekku fii te xam naan du ñëw. kon manager bi signé wul. sama manager signé wul le 10 octobre. le 10 octobre man moon si ñi am contrat même bu ma ñëwoon du ma bëri parce que sama manager wul. kon règlement bi mënagul a egsi man règlement bi kañ la doon egsi man mooy sama ménageur signé ba contrat tënk mobile ci le octobre. même bi a daan sax moom lañ ko ajee. mais liñ topp ménageur bi mooy signé mu bañ signé mais comme signé man rek man contrat tënkaguma ak CNG. te contrat le 25 juillet ba jeexoon na ci le 25 juillet ba promoteur bi jàppaat beneen. mais li ci gënoon li gënoon yokk coow li mooy période boobu tamit fekkoon na association jeune leader mobile 2 am yenn sortie mi def am yu bëri yoo xamante ne ni tey am na ñu ko xamul woon xamee ko ci mobile 2. wala yu bëri yoo xam ne nit ñi xamoon nañ ko doon ko doon raay ak di ko laam-laamee tey mobile 2 ñëw na wax ba ñu bëri ñeme koo wax. Hmm. loolu yëpp ñu jëloon ko def ko benn combat. dajale ko nag doon xaar benn occasion xëy na occasion boobu lañ amoon te bu jàppoon nañ ne buñ ko duñ amaat leneen. Hmm. moo tax ñu ko ci. Hmm. Hmm. am na solo sa diggante ak Pape Sarr parce que Pape Sarr génn na def ay sorties dinaa ko fekk dinañ fexe ba mu ñëw bu ñëwee ñu fay suñu xaalis bi daan bi tegoo tamit moom mu ngi xaar nga jox ko xaalisam parce que yaakaaroon naa ne sax dégg naa ci ay wax mu ne di ngeen dem sax ba ci fa mbaxana doonee benn. waa comme côté boobu rek ma ciy jéggalu tuuti rek parce que tamit euh, mooy li ma doon wax. man bëgg naa ci àdduna fépp fu ma waxee rek bu ma tuddee tur ku dem toog rek dina xam ne kii ki mu tudd war na koo tudd quoi. ñoom ñaar am na lu ñu posé loo xam ne mun nañ tuddante ci ay tur. yee am na ñoo xamante ne ni xaj nañ ci yow mais yow xajoo si ñoom. moo tax bu ñuy wax yéen nii da ngay bàyyi mu jàll rek quoi. Pape Sarr kon doo wax ci moom. ak ku dul moom bëri na sax. mais xam nga Pape bu baax bu baax xam naa ko bu baax. sorti yi mu doon def ci yow doon wax boo ko seetaanee nan la lay def. nit ku nekk daa am lu nit ñi moom ak lu ak loo moom ak lu nit ñi moom ci yow am na ñoo xam ne dañoo war a wax ci nit pour ñi bàyyi leen xel. wax ci yow ñu koy bàyyi xel. moom sax mais dama am na ñoo xam ne dañu war di wax ci nit pour nit ñi di leen bàyyi xel te man xëy na yu bëri duma ci bëgg di dugg ay comme diw lii diw lii diw lii diw lii diw mais man ak ñi ñiy wax. xamante nañ suñu biir bu baax. mais yow da nga bëgg a wax ne Pape amoo leen dara lu leen liyee yéen ñaar te ci combat bi lu ci bëree bari bu ko Mobile soxlaan da daan woo Pape Sarr wala mu envoyé ko vocal parce que Pape Sarr firndeel na loolu. Hmm. yàlla xam na ne bëri na ñoo xam ne ñi ngi toog ci internet bi di wax. Hmm. ay lii wala lii mais man ak ñoom ñoom ñoo ko sàkku. wallaahi wala sim ñoo wut sama numéro am ko. ñooy dégganteek man comme dañ laa bëgg da ngaa baax nit ku lii nga nit ku lii nga. mais àdduna noonu lay demee. tey ana coow loolu. ana kuréel googu ñu doon wax. association promoteur boobu doon tëgg noonu anañu. boobu ak léegi ñëwaataguñ. moo tax dafa am loo xamante ni bu buri bi bëree loolu ngelaw li di yëngu da ngay taxaw def dal rek. maanaam bu pënd bi wuree ba wàcc ñi si doon gaynde dañ leen xam ñi si doon bukki dañ leen xam mais bu pënd bi wuree ndoo bu ñëpp àndee soobu rek kenn dootul xàmmee kenn mais ñoom ñëpp ku ci wax loo war a wax ak ku ci waxul wax ak yëpp jéggal nañ leen mais chaque jour nay rafet ndax ëllëg a tax Mobile 2 actuellement day baalu àq CNG bi ngir ñu jéggal ko daan bi ñu teg ci koom wala Mobile 2 day bind dem ak CNG bi fi nga xamante ni foofu la mën a jaar ba loolu ñu ko tuuma boobu ñu ko tegal ñu teggi non wax dëgg yàlla tollu ma fenn fu may baaloo CNG wala lii wala laa. mooy li ma la wax man dafa am benn kii boo xam ne dafa nekk ci man. man pour signe de respect jaral na ma xeex ba du ma am dara. pour nit respecté ma jaral na ma xeex ba du am dara parce que nekk naa benn nit koo xamante ne nii nii nii lépp lu may wax lu ma gëm la. mooy ni may waxee yow nii nii nii nii bu la bu ñu CNG convoqué woon nga toog nii laay waxee ak ñoom. Hmm. parce que li ma leen wax lu ma gëm la te dama koy wax te ñoom duñ ci teggi dara. xam nga looloo gën a bon mooy dañuy toog ñoom ñoo bind règlement bi teg ko teg lépp léeg-léeg lii mais dañuy toog ma wax ak ñoom te duñ ci teggi un parce que dama toog président commission discipline CNG mi ngi tudd Bun Daawda parce que wax day boot seede taabal bi ñu toogoon ñàmbe mi ngi fa toog kon li may wax nëbbu ma ko bi ñu toogee di wax président commission discipline bi daf na ma mobile li nga wax lu leer la mais benn erreur nga def ma ne ko ban munoo mooy bi ngay tukki da nga kaa waroon wax CNG da nga ko waroon wax promoteur bi ma ne ko mais man bi may tukki man maa woo promoteur bi téléphone ne ko dañ ma woo États-Unis pour benn contrat a dem signé maa ngi tukki ñambe ne ma CNG administration la xamul dama woo diw bind la xam da nga waroon bind kayit jox promoteur bi buy waneen da ngay tukki bind kayit indi CNG CNG xam ne da tukki en cas bu promoteur bi jàpp dat nañ ko xamoon ne kii déposé na kayit buy tukki ma ne ko ok loolu dëgg la moom ma ne ko suñu làmb ji bi muy yàqu nag lu ci nekkoon pexe mu ne ma seen làmb ji bi muy yàqu biñ ne suba la ku ci nekk woo nañ sa ménageur ma ne ko xanaa CNG du administration jour boobu. làmb ji ba muy baax ngeen jàpp dat da ngeen woon suñu ménageur yi da ngeen a bindoon kayit jox leen. Hmm. lu tax bi muy yàqu ngeen woo leen. lan moo tax bi nga waxee ak man ma ne la woo naa promoteur bi nga ne ma CNG xamul woote ba pare CNG mi xamul woote beneen bi ci topp mu ne woo nañ ménageur yëpp mais sa ménageur dañ ko woo jotuñ kon CNG war na maa toog nee nañ dañoo woo sama manager jotuñu ko bëgg faalu laay waxal mu ngi may dégg man ak moom ñoo toog table ñàmbe mooy wax lii may wax nii. ne ko woo naa ñëpp mais dama laa woo jotuma la bëgg faalu ne ko man heureusement ba démb ak barki sama téléphone dafa yàqu mu ne ko moo tax boobu ba tey mënuñu la jot mais comme jotuñu bëgg faalu te woowuñu ma man ku may wax ne làmb amul. mais mais structure bu mel ni CNG est-ce que war nañu tënku ci. loolu nag CNG bi laa koy laaj war nañu tënku ci woo nañ manager mobile. téléphone am dafa fay wala dañ ko sàcc ci diggante bi wala tàkkul. rek ñu ñu ñu ñu arrêté. après ñu ne baax na noonu. après ñoom faay boobu noonu yëpp nga xam ne CNG juum na ci mais ñoom dara du leen ci fekk amuñ si lu ñuy laam-laame seen biir. beneen exemple bi ma lay joxaat pour nga xam ne maanaam dama koy wax quoi parce que boo koy wax na gars yi dañ naan kii dafa bëgg attaqué wala dara. Hmm. mais faaw ñun ñëpp ñu xam ne li ñuy def liggéey la. Hmm. mobile bëre bi la ci am baa jili microom la ci am kii tëgg tëggam la ci am kii woy woyam la ci am mais bu ñëpp jotee seen cër dina organiser wu ku ci nekk di nga ci lekk li nga am te kenn du gaañu baa jili CNG moo am règlement boo xamante ne nii commencement ba fin ci mbër xaalis la mbër mu tuus temps bopp xaalis la mbër muñ convoqué quatre heures nga ñëw cinq heures xaalis la mbër mu retard xaalis la temps de musique bopp xaalis la avertissement xaalis la dóor kuy regret xaalis la sortie de libéré xaalis la léegi règlement bi lan lay jóg. parce que a naqaree canaliser yéen ku laal seen xaalis ngeen jóg. dégg nga loolu baax lépp règlement wu làmbu xaalis la amul benn article article boo xam ne def na la boo defee lii sanction bi lii la yem ci non xaalis la ba pare après ñu xool sanction bi lan la CNG nekk benn structure boo xamante ne nii règlement bu mu tëral ci làmb daa am action bu mu tombeel bu am ci bis bi. Mm-hmm. règlement bu ñu tëral du luñ toog jàngat ko seen xam-xam ñoom dañuy improviser rek day am lu am rek ñu dugal loolu ci règlement bi. daanu dajul suuf lépp nag mu am. daanu dajul suuf loolu xam nañ ko daanu dajul suuf. daf lay wóor ne lii aajuwul woon xaar ba am. bon li dal Papa Sow ak Siteu est xalaatoon nañu ko jàpp woon ni mun na yegg. ma wax la ban cuunee ci am. Hmm. Alioune Seye de ñaq jariñu hmm. danoo bëree. Hmm. coow bu ndaw am ci biir géew bi Alioune Seye de gaañu ci. mais comme combat boobu noonu du combat bu kii noonu. combat cinq la wala yooyu noonu. kon combat bu ndaw la. lan lañ def dañoo jël reliquat yi delloo promoteur ba. est-ce xalaatoon nañ ne bis combat 60 millions day def noonu. si ta Papa Sow la hmm. est-ce que dañoo mënoon delloo Abdou Fadou Lika bi. looloo cuune. mobile de mooy wax. te des fois wax dëgg. mobile boo ko bëggee contre contrecarrer sax doo am foo jaar ndax vraiment wax nag bu dofee nopp yi koy dégg war a wér te li nga fi wax yëpp wax dëgg du lu nit mën a dindi xaw ma nag. mooy li ma la Alioune Seye de ñàkk jëriñ dafa tas. ca condition yi Siteu Papa Sow mooy Alioune Seye 2 moo coowak nitu ñaq jëriñu gaañu ci ñu jër reliquat bi delloo promoteur bi Papa moo ko moo coow ak nitu Siteu gaañu ci mais reliquat ba daa bëri <laughs> tolloowul ak beer neexul a delloo <laughs> <laughs> bañ koy def fee seen xel mosu leen a jox làmb cent millions mosoon naa mën a mënoon naa ñëw. CNG bi tànte woon na pour delloo promoteur bi. mais mais promoteur bi génnoon def ay sorties di def attaque ci loolu. naan man làmb laa signé woon nii ak nii ak nii. Siteu tamit génn si beneen côté bi def ménage am ne sama xaalis di mag sa laay xaar bu ñëwee tey wax ma lu leer suba dinaa ko jëli. mais tamit est-ce que mobile buñ la buñ la fayee mobile de pour mu bëreeg Bour Sine ñu def contrat bi mobile bu ñëwee làmb ja contrat bi mooy bëre hmm. mais est-ce que boo ñëwee ci làmb ja rek. contrat bi dafa mobile dafa remplir contrat bi te contrat signature contrat bi contrat bi li nga xaati bari la. parce que contrat bi date moo ci nekk. Hmm. date moo ciy nekk heure jour. Hmm. moo ci nekk dama lay joxaat beneen exemple rek. Hmm. damay bañ rek xam a Sénégal dafa naqaree waxee nag. ay ñu toog naan dafa mer. day am ñu toog naan dafa lii mais c'est-à-dire day nekk ay dugg yoo xamante ne nii nitu làmb yi nag. ñoom ko gën a xam fuuf. mais xamul lu tax neexul wax day ku ci nekk rek dafa am mbër moo xam ne da nga kaa yor te buggoo wax. gars na ah kii mooy wax kii amuñu luñ ko toppee mais moo yor booy diw di koj booy diw wala di koñe booy diw. làmb looloo ci nekk. CNG dañ làmb day am. CNG ne bàyyi jiili muy bëre grand combat bi dix personnes lañ ko may. déglu li may wax bu baax. Hmm. ne baay jiili muy bëre grand combat may nañ ko dix personnes. ne bunt bii la bàyyi jiili di jaaree. jël mobile teg fa mais xam na jikkoy mbër mbër mun naa ñëw jéema a jaay doole mu jël huit policiers booleeg mobile. bu bàyyi jiili ñëwee mobile compté dix personnes yi bàyyi jiili dugal quinze personnes te xeexul xuloowul CNG siggi gis bàyyi jiili dugal quinze personnes. CNG buy topp ku mu war a topp. ki ñu bàyyi ci ba mu fa teg. mais kooku dara du fekk day dem compté ñi si ëpp yëpp dagg ko ci xaalisu mbër mi. day da compter cinq yi ëpp yëpp dagg ko ci xaalis mbër mi mais yow doo ñëw ba ci bàyyi ki nga teg ci bunt bi ne ko yow bàyyi jili ñaata nit laal la waxoon ci moom mu ne temps bu soo di am nga teg ko ko bu dee moom day faye ko nga dagg ko ko est-ce que buñ defoon ne mbër mu ñëwati ñu ne dix personnes nga dugg ci nga dugal lopp dix personnes ka la bàyyi nga dugg dañ koy dagg ci xaalisam dina du dina duggati. bala moo duggati bakkan tëdd de. mais comme ci xaalisu mbër mi lañ koy dagg kay garaaw. mbër mbër amul bàjjen kay. mais boo ko waxee dañuy wax booy bi dañ kaa aj. Euh. booy ñaa zos zos ku la jël dóor ci bopp zos. Hmm. saa kees àtte leen. Hmm. jël zos. Hmm. yàpp ci oto yóbbu seetewoo fay. delloo zos këram. def booy ñaa la non violence. Ah, bëgg loolu yëpp bëgg bëgg. waa léegi d' accord daal. Ah. léegi ñiy def violence. Ah. bu dee heure boo defee geste bu violence. Hmm. buñ sa jógee dañ lay neexalee ambassadeur de la non violence ñi dul def violence lu ñu leen di neexalee. fair play. Baba Diakhal li muy bëri mosuñoo xam ne war naa mën a nekk ambassadeur wu jàmm gën. Hmm. dañoo damm siège ñu ñibbisi mu ñëw ànd ak ay nitam defar ko ñu ne ko yaay ambassadeur de la non bu jàmm gën déglu li gën a métti CNG ci mobile. loolu yaakaar naa kee Liss Ndiago Liss Ndiago Babu Jaxal defal nañ ko ko. Ah. déglu ma wax li gën a naqari CNG ci mobile. Mm-hmm. double moteur dafa bëree. Mm-hmm. bi mu bëree supporters yi damm siège yi. Mm-hmm. ñu téye 500000 am ne ko duñ la ko jox fii ak defaroo siège yi. double dem indi ay nitam yu ko defaral siège yi. ñëw waa CNG ne ko demal nga toog ba ñu woo la. double moteur dem toog di xaar ku ko woo Ada Fass ñëw bëre fa ñu dammaat yeneen siège. ma ne waa CNG bu double moteur ñëwee ndax xame ngeen fan la war a tàmbalee fan la war a yem. Hmm. ñu ne man damay influencer booy. Hmm. te pourtant que dëgg la parce que ñaari cas yu yu dend la te ku ci nekk daa am lu mu def Ada daa am problème boppam. waaw Double Moteur problème boppam nga bàyyi ñaari problème bi dajaloo. da war a Ada Fass defar si ñu ne ko demal nga toog yow xaar ba ñu woo la Ada Fass di xaar si taag Papa Sow ñu ñu mottali see si des. kenn du ko wax. waaw. parce que da ngay xalaat ne man mun naa ko wax CNG bi jëpp jàppal ma ranking nii ak nii ak nii looloo ci nekk. est-ce que mobile na jotul nga bind ministre des sports direct. ngir ka kat comme moom moo jiite CNG moom moo yilif CNG bi ñu jéem a xool nan la ñuy fexe ba kaaw mobile lu mel noonu wàcc ndax keroog gis naa bi mu ñëwee Grand Yoff Euh, buur géwél jël na kàddu ngir bëgg ko ko wax mais def na ko buur loolu du waxi fii est-ce que mobile mu ngi wax. waaw bu dee ministre bi moom mun nañu wax mais bu ñuy waxit lii ma lay wax nii laa koy wax ni ñi nga dénk làmb nii lañ ciy waxee. du ma ci yokk du ma ci wàññi. du ma ko wax ndax ministre laa toogal wala lii dama koy wax li nga xam ne moom laa gis si làmb ak lu làmb di ko doxee. jarul raay raayal man. ku bokk ci gétt gi naan ci meew. waa kay léegi nag nii la ah madame Ro mun a xam nga lii sama xol sedd na barke yonent bi xam nga ni buñ toogee di wax. nii laa koy waxee. lii erreur nekk ci làmb ji. ni CNG di traité mbëri ci làmb ji c'est-à-dire gis nga dafa am loo xam ne da koy wax mais gars yi dañu naan kii dafa bëri wax li muy kaas ñëpp xam nañ ko mais bu ko ñëpp xamee te du dëgg te waxuñu ko nag imagineel bàyyi jili promoteur la day tëgg làmb day ñëw CNG ñu ne ko da ngay joxe un million pour date mu joxe ko c'est normal parce que bëggatuñ coow date daam tëgg làmb ja jot waa CNG ne ko da ngay fay temps pour frais de organisation. Hmm. bàyyi ji li fay trois cent mille pour frais de organisation. Hmm. ñu dem ba jouru làmb ja bàyyi ji li xëy ànd ak équipe am dem organiser ji. mais li muy li muy def noonu lañ ko fayee hmm. dangay fay temps pour frais de organisation. baa jiili fay temps pour frais de organisation. mais bu ñu yeewoo jour làmb ja baa jiili mooy ànd ak équipe dem organiser làmb ja laf lu foraam yëpp moo koy def. mooy teg barrière mooy def lépp te loolu yéen ñëpp xam ngeen ko xam ngeen ne promoteur buy tëgg bu yeewoo stade la jëm ak équipe am. organiser la foraam te daa fay frais d'organisation. mais promoteur yi koy fay xaaj bi ñeme ko cee wax parce que yaa ngi koy xalaata wax ëllëg nga bëgg date bu baax wala ëllëg leneen ak leneen ñu la ciy koñe <laughs> <laughs> lii mooy sama problème ak waa CNG. te xam nga léegi xaaj bi yëpp nan la ñuy traité say wax. Hmm. dangaa ngaa bëggatul bëre rek. yow da ngaa bëggatul lii rek moo tax nga ñeme CNG buñ fàtte ne man bi may wax ak CNG CNG ajuma bi may wax ak CNG ci ay contrat laay nekk di bëri di wax ak ñoom. nii ma mel nii nii laa mel naturel waxtaan daf may dikkal léegi danga may woo rek ne ma yaa ngi tollu bërëb temps xaar ma ñëw ñu waxtaan ma ne la ñëw. Hmm. te dama doon génn ma toog xaar la. Hmm. nekkul loo xam ne lu may toog di bind la wala may xalaat nan laa ko war a kii parce que li may lu nekk ci man loo xam ne dama koy génnee naturellement moo tax bu ci erreur di am ay erreur yi garaaw ñoo ciy am. mais noonu laa ciy waxee dëgg yi ma bëgg a wax. lii mooy problème bi c'est juste dama bëgg rek ñëpp comprendre amuñu problème ak CNG bi. Hmm. amuñu problème ak lenn mais doxalin bi ñuy doxalee làmb ji lañ àndul ne CNG nii la ko war a doxalee. te yow mbër nga am nga droit wax xam nga tey bàyyi jili bi wax ci CNG sax mën nañ ne daanaka ci làmb la bokk ndax ki mais keneen benn joueur Sadio maane bu ñëw di wax ci CNG danaan ko non yow moom maîtriser woo làmb xamoo ci dara. waaw amoo looy wax noppi lañ lay wax. bàyyi jili dañuy waxante dëgg bàyyi jili CNG ak coow lu bari léeg CNG ak làmb xaalis bi ci dugg yëpp yéen ñëpp dugg ngeen CNG. Hmm. CNG ñetti bureau bureau Bira Sène la bureau Maguette sa Maguette Sow ak Njambe sax ñoo bokk benn couloir bi. CNG gu rëy ngay dégg yëpp ñetti ordinateur a nekk. CNG war a romb foofu noonu. CNG daa jiitewul lu ndaw dix mille licences la ñuy renouveler licence ku nekk dix mille francs bu ñu renouveler rek cent millions génn na. bàyyi ji li ligue olympique dañuy dem bëre ji. olympique. Hmm. ànd ak équipe nationale biscuiterie bi équipe nationale karaté nii ak nii ak ñoom booy fay laa la wax parce que dama lay wax tuddal la tur pour ëllëg bu ñu ciy am sikki sàkk nga dem laaj mbër ñoom booy fay. Hmm. jóge compétition ñoom ñu jël médaille d'or yi. Hmm. équipe nationale karaté gi yëpp ñu gagné ak ñii bu ñu wàccee aéroport équipe nationale karaté buy wàcc day fekk Sénégal tuuram di ko xaar biscuiterie bi wàcc aéroport ku nekk di woo te. kii bi mu ko kii woo Baye Jilem mu yor store mu jël si ko kii booy fay nee na ki mujjee daan booy fay médaille d'or la am kooku am médaille d'argent da koy daan waa ji daw di wër géew bi di zibile ba booy fay dab ko téye ko ne ko yow médaille d'argent nga am ngay yuuxu loo yuuxu waaj na ko man bu ma ñibbee fi fi ma dëkk fu gën a seer ci gox bi lañ may may kër te médaille d'argent la <laughs> léegi nag boo koy wax gars dañ naan kii daa bëgg ay coow dafa bëgg ay lii bi bëgguñu ay coow c'est juste li ñuy wax mooy li nekk te dañoo jàpp ne li ñuy wax nii war naa mën a faju parce que ay mala jiite wuñ ko te jiitaluñ ay mala. Hmm. ay nit a ko jiite ay nit lañ jiital. kon lan moo tax warul mën a doxee comme ni yëfi nit di doxee. mën hmm. naa ne. mais la moo tax ñu bëgg ne boo nekkee mburum làmb sa waay lu CNG bi def noppil sa carrière li ci des a ëpp lii waaw déggal li ma la wax ni ak ni ak nii ak nii non non demeewul noonu sa carrière li ci des moo ëpp lii mais defal sa xel ne sa carrière la ca des li mu ëppee lii noonu la ko war a gën a neexee te bu fekkee nii la continuer di demee nii nii nii nii nii nii nii sa carrière ni ci des moog lii la mën nga koo calculer lii nii lay continuer di demee bu baax wolof daf ne lu duufandoo ci nag ci cin bi waaye war nañ def chaque fukki fan ak juróom <laughs> ñu toogaat waxtaan bu mel nii ndax texte yi day gën di changé ñu ngi jëm saison bu tëj xam naa bu tijjee CNG dina changé waat réglement yi changé texte yi yàlla sax mën naa def ñu jéggal la ci diggante bi. baa ji yàlla mun na koo def texte yi changé yëpp yàlla doon li nga xamante nii lu gën ci làmb lay doon mais doon loo xam ne lu xel di nangu lay doon. dafa bëri lu war a jóg ci làmb. baa ji man mënu ma concevoir mbër daan. CNG arbitre di juum joxe victoire ci naka su noonu wala dara mbër mi dugal recours am CNG dem xool vidéo yi xam ne mbër mee daan ñu jox victoire mu perte vingt cinq mille man mënuma imaginer loolu te yow nga xam ne yow arbitre ba nga fa teg moo juumoon parce que yow mi ko fa teg bi nga demee xool xam nga ne non erreur am na sama arbitre maa ko yóbbu woon stade hmm. yow CNG yaa fa yóbbu arbitre bi kon xam nga ne arbitre bee fa defee erreur ba yow mi ko ah waaw frais de dossier vingt cinq mille. recours daa am amul dossier bi ñu bind. de recours CNG xamul lu ñuy def dañuy teg vidéo bi xool ko. waaw ñu ki indi vidéo xam nga mbër mi mooy yóbbu vidéo am. moo yóbbu moo yóbbu vingt cinq mille am. mais ñoom ñu koy seetaan loolu frais de. dossier ah, de verre yi ñu wala bët yi <laughs> loolu kay frais de bët la. Ah, indil la sama vidéo nga seetaan ko ba fay la ci. <laughs> te yow yaa ma jox arbitre bi ma yóbbee loolu yëpp. léegi est ce que ñoom waruñu ñëw ubbil kon beneen bunt boo xam ne bis bu ñu dugalee recours CNG valide ko ne ñoo am ndam ñun ñoo am fuñ topp arbitre yi waaw. arbitre bi fay leen seen benn. waaw arbitre bi arbitre journée. arbitre bi moo juum. moo juum jox la victoire bi. arbitre bi nangu la delloo juróomi junni bi CNG junni. na ubbi beneen règlement boo xamante ne nii bu boobaa mbër mi day déposé kayit duñ ko fay juróomi junni de arbitre bi da koy fay cinquante mille. boole ko ci comme ñoom dañoo fay ak frais de maire bi fay ak frais de bi ak vidéo bi mu indil. mënuñu ko woon def dafa bëri lu ñu war a changer bu ñu ko doon wax du ñu fi jóg léegi nag ñoom boo koy wax li ngay wax ni dimbali leen nga juble parce que bu demee woon nii ñoom dañuy am jàmm mais dañuy jàpp ne da nga leen di xas wala da nga leen di jaxaseeg àdduna ñu jël ko def ko combat di xaar fu ñu géereeg yow di xaar ban occasion la ñuy am ci yow wala lii wala laa mais saa waay dañuy waxante dëgg. macha allah mobile man am naa ci benn xalaat mooy CNG bi tey waroon nañu mën a woo mobile 2 ci li muy wax yëpp ci texte CNG bi ñu déglu ko mu wax ñu bind lépp suñ paree ne ko mobile dinañ la woo buñ demee ba changé ñu woo la mobile changé nañ ci lii ak lii ak lii yenn mbër yi nga xamante ne ay président écurie lañ. wala wala boog jiite nañ ay kuréel ñu woo leen defal leen loolu parce que ñoom ñëpp yaakaar naa ne benn lañ te njab làmb leen waaw noonu la ñoom ñëpp làmb moo leen njaboote. te boo xoolee ba xool li nga doon wax sànq rek ku bokk ci gétt gi naaw ci naan ci meew mi mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk Mm. dama lay waxal benn mbir ne la. woywu naqari. ak dàll yu xat ñooyam. fu ci waay jëmit doo ci sori ndax day métti xol. waaw léegi nag ñoom nañ toog ñu waxtaan. lii indi waxtaan boobu nag. mooy yow yaay essayé nawloo ñi nga xamante ne ñoom lañ la jiitalal. baa ji li gis nga ñiñ la jiitalal boo leen nawloowul ne ay dof lañ. defal sa xel ne ñoo la tane ndax dof yee tax nga am teraanga. te teraangay dof nag ku ciy dund war a valoriser dof. xam ne am na lu la dof jëriñ. <laughs> maa ngi lay jaajëfal <laughs> jërëjëf Mobile 2 la ñu dalaloon vraiment waxtaan ci loo xamante ni lépp njariñu làmb la. Mobile wax na ci ay ponk yoo xamante ne vraiment CNG bi jot na ñu bàyyi ci xel ndax ay nit kese ñoo ne CNG te nit ku dul juum yàlla suñu boroom sàkku doomu aadama kese la. nit moom bu demee ba parfait nekkatul nit kooku leneen la te doomu aadama daa war di juum. di ñàkk juum des fois mu def lii des fois ñu ñi nga xamante ni sax ñoo bokk làmb ji vraiment xel du doy yaaw jaal war naa mën a joxe xelam ci làmb ni ko mobile di joxe ñu koy jaajëfal bu baax mbokk yi di ko jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf.